بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ci Leewtoo TV wala Lutte TV ñu ngi leen di bëgg yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di waxaat rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla ki nga xam ne moo fi jógee ñu gën ko xam ci turu Papa Yade waa làmb ji te turam di Assane Diop yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ñu ngi ñëw tey nag fi nga xam ne fi la dëkk muy Tëngéej euh, jokkul toog ak waajuram ñu toog ak moom ni di ko jaale doomam di ko jaal képp kuy doomu tëngéej wala nga bokk si làmb papa ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la ñu ngi lay wax sigil sa doom ji fi jóge na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàll sigil si wàll sigil si wàll asalaamaaleykum wa eh, ngi nuyu mbokk yi 7TV eh, Leewtoo TV ah di rafetlu seen si wi am si suñu kaw nag ñu delloo ko si yàlla eh, te xam ne eh, mbiri yàlla moom eh, romb na xelu doomu aadama yàlla bu bëggee nga bëggee rek yow dangay ngay ñàkk yàlla nag comme bu lay jox nit du la tàggu bu koy jël du la tàggu Assane nag sama doom la maa ko jur jur ko nag fi ma ko war a jure mu doonoon doom joo xamante ne ku amoon ci moom yaakaar la àddina moom mais papa li ñu lay wax mooy nga muñ rek parce que àddina moom moo tëdd nii kul nafsin saayxatin mawtin dafa metti nag xale boo xam ne xale bu ndaw la vraiment nga yaakaarum ko def ci moom li nga def ci moom mais nag dañuy nanguwaat dogal rek delloo mbir yëpp suñu borom bàyyi waaw loo xam ah, ah, xol bi rek parce que seere yi dina baax trop ci moom surtout yow mi nga xam ne yaa di woy jiw naa lu nit di wax ci moom yow yaay li nga say wax mooy gën a valable waaw ah, metti na dafa metti trop dafa metti trop waaye nag dafa metti mm. dëgg la comme di wax li ma lay li may wax rek mooy que ne ku ma amoon si moom yaakaar la ndax masul la werante ak man lépp lu mu mës a jàpp su ma nee Assane bàyyil mu bàyyi amul benn combat bu mu doon bëreel maa ngi woon Casamance te neewu ma papa damay bëreeg diw ndax naa la defal ñaan heure bu daan génn ci kër gi li mu mujjee laal ci kër gi sama kàddu lay jóge mu doon nag nit koo xamante ne ku yaatu dënn la ku bëgg mbokk amoon fulla nag si moom ndax man mii di baayam ñàkkuma fayda te duma jur ku ñàkk fayda ndax daray kenn feesul sama bët sama ñax rek laa xam moom rek laay dundee daan naa ko tooñ sax bu ñëwee papa naa nga mën na ko foo oh, Assane man maa lay power sët ngay bëre jël ko nga def ko sa poos papa lu tax nga wax loolu man ne ko xam nga fi may waxee nga xamul ndax yow maa la jur ne ko si sama wërsëg nga bokk loo mante am si sama wërsëg la bokk nga bokk moo tax ma ne maa la power sët ndax maa la maa la jur li nga yor maa ko moom booleeg li ma moom man maa ma ne ko loolu tax ma la maa la power sët mais bu sooba yàlla mun naa mën a ko bu dee ñaanu waajur dina jariñ doom mun naa mën a ko foo bëgg a yegg di nga fa yegg xam nga di ma gën a metti xam nga deewu accident dafa metti bu doon da nga feebar ñu ne dafa feebar xam nga bu doon laneen nga tudde ko laneen mais xëy suba rek ndax man dimanche lañ ma woo ne ma dafa accidenté dimanche lundi mardi ma ñëw ma ñëw ma ñëw euh, Mbour jóge Casamance bi ma ñëwee magam laa si waxal ñaari yoon moo war ma ne ma papa Assane mujjee naa noppalu loolu laa si am ba tey teguma ko bët démb néew bi ñëw nag kenn mënu koo jot ndax ay nit waaw mënuma koo mënuma koo gis ba ñu denc ko ndax situation bi na mu demee woon démb man maa mu jëne ilimaan bi noddal ñu jullee ko parce que lii mënuma ko comprendre te presque une heure de def na ko si biir corbillard bi mënuñoo wàcc néew bi si oto bi ndax nit ñi biñ koy jullee ñu téye si jaat gi na kenn du ko jullee xam nga moom mu jënee imaam bi kàbbaral ñu jullee ko bu ñu paree lépp lu ñuy waxtaanee ñu waxtaan xale bu baax la nag xale bu baax la bu yaatu dënn yàlla na yeggalee ndawam àllaaxira kañ asan li ñu mujjee wax. bi sama papa génnee àddina man ci biir Covid bi la sama papa àddina ñu déggante téléphone laa déggante ak moom maa ngi Casamance mu ne ma papa maa ngi woon Mbour démb ci dëj ba ma ne ko fan nga jaar bi ngay ñëw mu ne ma sama moto ni ma ne Assane Diop yow Covid bi mën naa am ñu téye ñëpp seeni kër fan nga jaar ba dem Mbour mu ne ma ah, papa de yooyu amul problème man ci sama moto laa jël moom laa yóbbu Mbour jaala ji woon dëj ba lii laa mujjee wax ak Assane Diop lii bu ñëwee toog papa ma mu ne ma dina dina ma la jëndal oto ma ko yàlla am na oto yu bari xam nga mais boobu yéeneem lay wax si si man ndax xamoon naa yéeneem fi mu toll si man xam naa ko. ndax dañ daan waxtaan nag sama doom la boo xamante ne mosuma koo ñooru ñooru ma ndax man du ma ñooru doom samay doom yi samay xarit lañu hmm. ñëpp mook magam dina fii jàmbaar la ma koy sant di ko gërëm muy Aly Ndiaye bokk ndey ak baay léppi Assane si Aly Ndiaye la ne du mosaana coow bu ñëwee papa Assane Diop nangam ak nangam mën na ko kenn du gedd sa rakk Assane sa rakk la xale la soo ko geddee mu sànku danga koy woo di waxtaan ak moom nga fexe mu rus la bu la rusee rek loo bëgg di nga ko am si moom mais mm-hmm. loolu yëpp eh, mbiri àddina la xëj na nag lii la yàlla dogaloon si moom jaab manu si dara jaab si dara waaw yàlla na yeggalee ndawam sa àllaaxira di leen wax ne daal nit ku baax la nit ku baax la nit ku bëgg mbokk la fu sama mbokk ne Assane Diop dina la seeti dëj bii bi mu amee dañ defoon ne mbuur mbuur la yaroo mais fii la yaroo ndax képp ko ma xeetool ñëw nga si dëj bi démb fu nag fu ne fu ne nit jóge na fa ndax bisu Assane Diop bi yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla yërëm tey bu bu ñu gisee image yi boo amoon tey looy wax sénégalais parce que li ñu gis démb ci image ci xale loolu yéeme yéeme la mel ni tamit daa mel lu mu doon def ak nit ñi daa mel ni delloon nañ ko njukkal biñ mu biñ ko waree jébbal borom ndax mbooloo mi doy na war comme ni ñu waxee sànq tey ban waa euh, message ngay wax waa Tëngéej mais waa message bi may jox waa Tëngéej ak ay ñi mel ni moom doon ay ndaw nekk ci seen yoonu àddina message bi ma leen di wax mooy doomu aadama dafay am respect ci doomu aadama nit dafay ubbeeku. ndax doomu aadama mënul boppam dara ndax mag ñi buñ naan nit nitay garabam déedéet nit nite mooy doon mooy garabam mais du nit mooy garabam nite mooy doon garabam Assane nag nit la koo xamante ne lépp li li ngeen fi gis démb moom moo ko liggéey parce que amul woon frontière du mag du ndaw booy wax mu toog di la déglu lu mu jàpp boo ko nee asan bàyyil mu ne maa ngi jéggalu de maa ngi jéggalu pare na si dem yoonam mu ngi si yeneen yeneen yeneen nit ñee ko doon xalaatal moom mais moom xalaatam rombul woon sax fi nit ñi euh, fi nit di gisee moom nit la woon koo xamante ne nit ku gëmoon boppam la te dara daray kenn yëngalu ko moom ku amoon fulla si boppam xam naa ko te daraam nag bettu ma déedéet Ngari Assane Diop bettu ma. ba ci lii sax. ba si lii bettu loolu. ndax façon bi ma gisoon si moom si ay atam xale la de mais affaire kilifa la doon def xëj na nag mënoo koo maîtriser mënoo koo xam te lii xewul ndax xale boo gis am na jaar-jaar xale boo gis. am na jaar-jaar te doom ju ma préparé la woon man mm-hmm. loolu moo ma mit amu mel ni kon daal yàgg lii moom xam nga amee su luñ si mën a teg daal xanaa rek ah ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljina di jaajëfal way juram ndax itam lii daw na yaram trop te doom ju ne war nga sàkku lu mel ni ci sa way jur ndax àddina moo tëdd noonu day neex di naqari bu dee xew neex la war nga fexe am lu mel ni ci sa way jur même bu dee naqara tamit même chose defe naa lii moom dal na xel ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ay mbokkam wala moom ci boppam wala ñi nga xam ne nii ñu ngi seetaan image yi parce que ku seetaan image rek di nga xam ne doom ju nekk ak way rek war na ko déggal war na ko jox cër war na ko bàyyi xel war na doxale digganteem ak moom war ma i teggi nag sutura parce que leneen lu dul lor rek yàgg soo ko defee pour man yaa koy yàq metti na nag waaye am na ñoo xam ne bi mbir mi amee ñëw nañ fi ñu mu bokkal milieu làmb ji daan yëngutu ay mbër su ma jumul gis nañ fi ay nañ fi ñooñu ñu ma tëjee foofu ak yow papa ñooñu de boo amul loo leen di wax parce que ñoo bokk métier mu ñuy liggéey doon ay adversaire lañ ngir benn tàkkusaan loo leen di wax rek ñu jeexale foofu ndax waxtaan wi xam naa ne mënul mënul yegg boo di leen sant rek di leen gërëm di rafetlu seen teewaay démb waaw ma am si kontante torop ndax euh, xam naa ne euh, ki ma jur yaafusul seen kanam ndax euh, dafa joxe bon exemple si ñoom si yoon wi mu jaaroon yàggu si nag mais wane na si fullam ak jomam ak faydaam ba ñu xam kii ban façon nit la ne nag yàlla mooy ñëw ak li gën mu def ko may rafetlu seen jotaay seen taxawaay bi ñu fi ñëwee démb euh, si wàllu ak lu làmb euh, taxaw nañu seen seen rakk seen xarit gunge ko ba si këru dëgg gi euh, di leen si sant di leen si gërëm si di rafetlu yéen ñi seen seen teewaay fii maa ngi koy rafetlu di leen jaajëfal jërë ngeen jëf. ñu ngi biir Tëngéej ki ngeen toog ki ñu gis nag mbër la. di assurance dëkk mbuur tey ñu gis ko fi nga xam ne moom mooy jokkul ci dëju Papa Yade mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa lay fay Babacar maa lay ziar di la digg bu baax di wax ne inna lillahi maa ngi di jaale waa Tëngéej yëpp Papa Yade bi nga xamante ni moo fi jóge maa ngi leen koy jaale bépp doomu Tëngéej di ko jaale mbër yëpp dina ko jaal yow mi toog di ko jaal waa Mbour itam. waa maa ngi koy jaale bu baax a baax. Papa Yade sa mbokk la wala da nga ñëw ni rek en tant que mbër pour jaale si. non non Papa Yade sama doom la ne papam ñoo bokk benn papa suñu papa yi ñoo bokk nday ak baay Ndiaga Diop mooy papam Ndiaga Diop Ibou Diop Soli moo ko jur man Souleymane moo ma jur Souleymane ak Ibou Diop bokk nday ak moo génn sama doom moo génn àdduna loolu moo ma fi tax a ñëw mais nekkul en tant que mbër. la ne. mbuur la nekk muy njóobeen taay mooy njóobeen gi gën a mag ci biir mbuur mooy njóobeen taay mbuur tefes ñi fi toog si baas bi nii ñëpp ay papaam lañ ñi ay xaritu papaam lañ turandoo mu ngi ne toog mooy Assane Diop suñu mag sidaat di xalifa kër gi mu ngi nii toog ñu ñii fi toog nii ñëpp ay papaam lañ. xale bi loo mën a wax si moom ndax koo xamoon la. waa li ma gën a neex si moom nag mooy bëgg mbokk doonte dëkkatul woon mbuur jeunesse am mu ngi ko defee tëngéej mais man mii di wax ak yow rek su ma amoon combat tey laa koy door a wax dafa daan ñëw di ma contacter yàlla xam na ko dafa daan ñëw di ma contacter maa ngi nettali benn histoire bu ndaw la ma waatee géej baal ba bi may bëre ak Sococim sax ñëw na ko mais bi mu fa ñëwee amoon na ay coow fii te ngéej mais dafa doon wax naan dereetam daf ko bëgg man maa ko arrêté na ko demal toog Sococim sa mbokk la tam amul benn problème xam naa li may yéene mais jéggal naa la. demal nga toog amul benn problème balaa la say mbokkaa sikk xam naa ko bu baax a baax fan yee passé li lay xamal na jàmbaar ñëw na kër ga di jaay ay dàll lu xew kër ga maamam bërki dem moo njaay la génn àdduna ñëw na fa jaale si saa buy bëri kër ga dañuy gaaralu lu mat benn kaar wala ñaari kaar mobilisé ñëw tëngee ci yendoog ñoom ba heure bi booy dem stade ànd ak moom bu daanee bu daanoo da booy dañuy àndaat ak moom dem ñibbi. kan Assane Diop avant Korité maa ngi ko gëjoon a gis nag avant Korité non si biir koor gi bi ñuy waaj a Korité dafa ñëw kër ga ne day jaay ay dàll ñu toog fa di waxtaan ci làmb lu yàgg fekk Assane Ndiaye waxoon ma ne dafa bëgg ko mbaam ne ma waxtaan a ak moom ma ne ko dinaa waxtaan ak moom mais xam naa ne moom Assane combat bi nga koy wax bëgg ko waaw loolu moom waxtaanoon nañ ci lu bëree bëri waaw ba bi mu fiy jóge di dem Kafountine di jëli gaalu ama neex gi jaar na kër ga ànd ak ama neex dem jëleli ko gaalam tey looy wax ahlu lamb boo gisee dem taxaw bi ko waa ngi taxaw mais waa ahlu lamb tamit ni ñu ci taxawee loo leen di wax yow mi nga xam ne papa nga si moom waaw li may wax di leen remercier bu baax baax di leen wax ne seen mbokk seen doom la ñëwoon gunge si làmb lii rek la baaxoo làmb njabootam fépp fu mu nekk muy lu baax muy naxar muy bànneex ni ñu taxawoo démb papa Yada ñun fameem day kontaan nañ ci bu baax a baax rawatina nag mbëri Tëngéej ba ci yéen ñi nga xamante ni yéen waa yéenay waa presse bi parce que tey bu siiwee bu ñëpp jot ci presse bi moo tax ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant donte lu naxar la mais kon bu dee bu baax yàgg naa dégg ko micro ngay wax ay xale bii ay xale bii loolu moom yàgg naa ko dégg xam nga. bu am talaa macha allah. ba biig si guddi rek seetaanaat naa ko nga toog yàgg Lamine mën naa laan ay papa yàdd xam nga kon diwo boobu fàttewuma ko ngeen toog di ci waxtaan fu turam yegg Madia moo ko fa yeggalee. ab bay ngeen ci seen wàll ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax na daal njabootu làmb moo ñàkk te ku amoon ku ñu amoon yaakaar la ci moom man dama daan wax naan man day fépp fu ma li ma def ci làmb yàlla na moom yàlla na jël relève bi ba yóbbu turu njóobeen ci kaw parce que kiñ ko tuddee moom turandoom bii ki ñu ko tuddee bëre na ba bàyyi bëre benn yoon la masa daanu te sam papa la mooy papa alaaji bii mooy Assane Diop moom ak te dañ na ko boo daanul doo am doom mu doon mu daanu benn yoon bàyyi bëre kon daa doonu bëre ci côté yëpp da koo doonu ci côté baayam ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare waxat aljana moom bépp jullit rek ci suuf. amiin yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana maa ngi koy jaale tam ama neex ak mbëru tëngee ji maa ngi ko koy jaale gisoon naa ni mu ci taxawee. maa ngi koy masaw bu baax a baax a baax di ko wax ne xale yi fi des yàlla na yàlla bàyyi ba yéene bi mu am si ñoom suñu borom def ko jërëjëf waaw jërëjëf gaay ñoo ngi eh, Rufisque comme ni ngeen ko xame a ah, yaakaar naa ne Papa Yade moom ku ko xam-xam ama neex ku xam ama neex xam Papa Yade ñi nga gis ñu toog ay mbokkam lañu ay sëram waaw mu mel ni ki daal nit ki moom àddina boo si nekkee comme xamoo kañ la nay baax rek moo gën a wóor xamoo naka la ak nan la mbër dañ lay jaale rek ki nga xam ne ni moom lañ bokk parce que dama naan ñoo ko bokk ndax ñu ñoo bokk làmb ji te goonu golo olof ne na gudd mais loo si laal borom yëg ko ñun ñoo bokk lépp ñu ngi lay jaale ki nga xam moo fi jóge euh, di laaj sa témoignage ci moom loo ñu mën wax ci ki nga xam moo fi jóge di sarak waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mouhamed di sant suñu ñaar waajur euh, di ko jaale senegal ndax Papa Yada yaakaar naa ne Papa Yadam Sénégal àddina ndax démb boo gisee li fi am nga xam ne borom xol bu rafet la nga xam ne boroom xol bu rafet la ndax ku sa xol rafetul doo am bés bi mu am et puis ñun tamit dañuy ñaan yàlla bésam bi mu am démba nu nu am bés boobu ndax ku nekk rek war nga delluwaat ginnaaw xool sa bopp mais booy bi li ma la mën a wax si moom daal mooy xoolam rafet na sa baax na te déggaloon na ma tamit te nanguloon ma nooy defandoo lépp bu ñu waree am entraînement ñu dem bu amee combat fu ma xam sëriñ bu baax ma dem fa ku ma xam nit ku baax ma dem fa pour mu dimbali dimbali ko na avenir la booy bi xëy na peut-être yàlla moo gàttal fanam mais ku ko gis sax nga xam ne kii nii du du am fanu gudd yàlla rek moo xam ndax tellement que boo ko gis Papa Yade du siggi xool nit Papa Yade contrat lay taxaw nii waxa adversaire am nii bu paree pare na si dara jëy Seydina Mohamed pare na si xool bee yaatu am yërmande tey bu la gisoon ngay am histoire yaa keneen ku la bëgg a néewal doole moom mooy ñëw taxaw ma loolu defal na ma ko te man mën naa fajal sama bopp man man defal na ma yow Babacar. billaahi wallaahi talaay fan yii passé dañ teer da koy benn booy bu ñu ñu yéeg suñu benn compagnie jàpp jën maax moom ñu tëb bëgg a ut ay jën benn booy taxaw saaganu papa yaa da nar ko lekk ma oo ko naka gis nga tefes gi dafa bëri ay nit gis nga bu ñu fi xeexee suba ñooy raw marché. mu ne waaw wax nga dëgg de nañ bàyyi noonu te boobu man la saaga mais moom bi mu déggee loolu dafa naaw mel ni moom lañ ko wax tellement que cofeel gi mu am ci man na bi mu am ci man luñ ma wax si mbedd mi moom moo koy jël défendre ma billaahi ma looloo ma jooyloo ko xaw ma kale kañ la ah nan la ah naka la kañ laa amati nit koo xamante ni maanaam ku ma déggal bëgg ma lu ma dugg mu dugg si ba keroog bi nuy dem Gàmbi di jëli sama matériel ñoo ànd yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko malaaka yërmande teeru si darajay Seydina Muhammad booy bu gore booy bu baax booy bu bien booy bu bëgg yaayam bëgg papaam li ma la man xam naa si dara ndax man si biir yaayam presque yaayam moo ma yar ndax papaam dafa moon gaal fii suñu koñ jokkul njaayeen fii di fi campagne di jóge mbuur di campagne ñu nekk ay xale di jàng di dem si gaal papaam géej boobu Assane Diop judduwul boobu yàlla mi ma tiim xam na li may wax boobu judduwul ya bëgg Assane Diop loolu wax mu ooma téléphone na ma sa rakka sa rakka bi bëkk démb bi boobi gaañoo bi mu ñëwee si suba gi fii si guddi gi yaay moo ma jooyloo ndax ma na a tël rek mu ne ma ay waay ama ama na ñàkk nga rak ay waay ama neex ñàkk nga champion ay waay mbër papa dem looloo ma jooyloo yëg-yëg boobu ak cër bi ma yaayam jox a papaam man loolu moo ma sas la moo tax boobi mënuma len lulul taxawu ko ñaanaka yàlla jébal ko boroom gis nga démb bi ñu ñëwee fii bi ñëwee xam nga bi ñëwee fii démb gis gis nga nit ñi pour ñu wàcc Assane Assane pour ñu wàcc ka sax si ambulance bi rek pour tekk si jaag bi rek problème la. problème la ndax booy bi doon na nit koo xamante ni maanaam nit ku ñëw respecté nit ku ñëpp nawloo nekk si dëkk boo xamante ni dëkku mu metti lool booy bi muñ nekk si laay fam di reyante ba am huit combats sans défaite nga xam ne kooku jàmbaar la. mais léegi su ma la laajee par ni ni nga ko sësewoon ak yooyu nan nañ ci accident moto la mbir mi amee accident bi yow xam nga nu mu demee est-ce que mën nga ci dellusiwaat andi ci nii ay la demoon bi man samay dàll la gaañ la la defee soog ay cant la dàll yu bees tax ay joran yu ma ko jox mu xëy taal motaam sañ sees ba rafet xam naa boobu la waaw suñu borom wax jaar motaam raxas ba mu set dem cant ya 3 heures matin bi muy oññeeku si la gis benn pota euh, benn pocolin bu nekk si euh, tunnel bu tëngëj bi si la paan foofu bi mu paanee foofu nag xam naa booy bi foofu amul làmp xam naa booy bi looloo tax mu dal si ndax pocolin bi daa paan foofu te tunnel bi amul làmp maa ngi koy wax encore une fois maire bu tëngëj daaw di mu def tunnel bi làmp ndax li dal Assane Diop bañ a dalaat keneen. kon ci tunnel bi la accidenté. boobu jag euh, machine bi mu ngi gaare foofu paan booy bi nag dal te tunnel bi même boo yoree oto sax lalantiir sax dafa xóot booy ñëw booy jogaat alit lay ñëwee. tunnel bi fan la nekk si Tëngéej. tunnel moo nekk si juuti bi mooy boo dem péage moo nekk fii si juuti bi même boo lalantiiree boo yoree si oto boo lalantiiree booy ñëwaat alit ngay ñëwaatee ndax tunnel bi dafa am descente da ngay duggoo pour génnaat léegi nag xam naa ne booy bi gisul woon kii bi mu daw nag mbëkk ko bi mu ko mbëkkee nag man si lañ ma woo te fayat ga ay 5 ma si lañ ma woo ne sama booy dafa def sok noonu ñu yóbbu xam ma bu mu demee nag mu nekk daal comment xam nga affaire yi day yeewu tuuti jogaat te daat ñu piqué ko ndax métti nit gaañ-gaañ bi moo métti gaañ-gaañ bi yàlla mi ma tiw xam na ne daa métti te Assane yàllaa ko dimbale dëgër moo tax dëgër sax moo tax sax mu mu échec ba fii ndax neuf jours le vingt six la la affaire bi am bala démb barka démb ba lay doog a génn àddina ndax tellement que bi métti na métti goo xamante ni gaañ-gaañ bi si bopp bi la woon ak loxo bi ak tànk bi xam nga mais li si ëpp solo loolu yëpp garaaw mais loxo tànk bopp bi moo ëpp solo saa bu ñu ñëwee médecin yi nañu mu ngi tane ñu koy kii xam nga mooy loolu ba ni ko suñu borom jëlee. yal na ko yàlla yërëm taxare ko. amiin amiin amiin nit ku baax maa wéet man ndax xam naa boobu li mu mënoon jëriñ boobu tamit xam na man li ma waroon jëriñ. lu baax rek laa ko bëggaloon lu baax rek lu ma dugg mu dugg si lu ma nekk mu nekk si lu mu nekk moom te ma nekk si na ay nit bu ñu àndee noonu la ñuy def dañuy damalante tey démb boo gisee fii nu mu mel nga xam ne Papa Yada borom baax la nga xam ne Papa Yada borom xol bu rafet la dëkk bi kenn desul mbuur fu ne Joal Jifir fu ne am na fa ay nitam boo amee combat da ngay gis dëkk bi ni muy mel yàlla ko yàlla yërëm yàlla na yàlla malaaka yërmande teeru ko yàlla na suuf oyof si kawam suuf sedd si kawam yàlla may ko leera ak bàmmeel si darajay Seydina Muhammad ak képp ku mu fekk yomal xiyaam yàlla na la yàlla yërëm yërëm la daal yërëm yàlla na yërmande suñu borom xëppu ñu ñëpp suñu kaw ndax kenn kun fayakun moo nu ko joxoon moo ko jëlaat nit ku baax nit ku gore di ko jaale aku làmba di ko jaale promoteur yi di ko jaale ñëpp mbër yëpp maa ngi koy ne maa leen koy jaale yàlla ko yàlla yërëm leen ko jaale yéen tamit journaliste yi ndax tamit yéen kenn du yéen tey loolu lu bëgg a feeñal yéen a koy feeñal si sutura tey fi ngeen nu fekk nu am naxaar ngeen ñëw jël ñu wax li nga xamante ni moo nekk si Papa Yada ñi koy seetaan ñi mënul ñëw si dëj bi xam na Papa Yada nit ku baax la nit ku gore barki sëy masul lekk dërëm bàyyi ndeyam wala mu bàyyi papaam Babacar li ma lay wax ni dama ko dundaa booy bi. papaam wax na ko léegi kañ ci micro bi fii la ko waxee papaam dëggal na wax ji. dama lay wax nii dama xam biiram xam biteem avant muy dugg si làmb la ma nga yaay jox billaay wallaay talaay dama kii bu baaxee yow la bu bonee yow la ma ñàkk sama ndey ak sama baay loolu la ma yaayam wax papaam ñuy déggante mu ne ma mbër ki daa war a nekk ci yow na man maa la yar sama gaal nga nekkoon billaay wallaay talaay bokku lii ngay def far fos billaahi wallahi talaay ay nit demoon nañ ba bëgg ma jaxasee moom sa nakaan ama neex waaw day ñëw di la jéem imposé dañ ko ñaanal parce que rek kii ñu toogal defe naa ne mbokk la ci Papa Yade soxna si maa lay nuyu di la ziar. maa lay fay la jaale ki ñu ki ñu bokk. la bokk ak moom. ñoo bokk papa. waaw. ni kon ci moom comme ay témoignages. ñoo bokk benn papa. man maa topp ci moom yoroowul nag mais Assane fu mu toll doon na ñëw di seet si di ñu nemmeeku bu may fàttaliku bi ñuy nekk xale Assane da daan fàq tëngéej ñëw suñu kër bu sam papa wootee ne nañ ko yóbbuwaat mu ñibbi ndax yaayam yëgu ko dañ koy dàkk ci mbedd yi sax pour yóbbu ko mu ne du ñibbi moom kër papaam lay toog nekk mag bu ñu bëgg bu ñu mën a ku baax ku mën a défendre rakk Assane ànd nañ ci moto mu ñëw mbuur septembre Kankura mu nar xeex ak benn borom oto ndax man bi may mujjee gisante ak moom kër ga la ñëwoon ñu toog ñun di waxtaan bay ñibbi ak gunge ba ci mbedd bi mu lëng ma naa man fii ak deux jours dinaa fi ñëwaat booba laa ko gëjee gis ñaari doom baay rek laa am moom ak magam yàlla yóbbu ñaanal ko rek yàlla jéggal ko te xare ko aljana maa koy ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla jéggal soxna si taxare ko aljana